asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, monsieur le ministre maa ngi lay nuyu di jiital ci nuyu bi ak siyaar bi Cheikh Mahamadul Muntaxa di ko ñaanal sama borom mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal kilifa diine yi ci Sénégal yëpp monsieur le ministre ginnaaw temps bi bëriwul dama lay njëkk a ci problème mu Sadio d'ailleurs di leen félicité ci ndoxum Mbàkke mi nga xamante ni yéen a ngi koy réglé ndax ñeenti forage yi nga xamante ni yéen a ngi koy jël Sadio di ko indi Mbàkke yéen a bëgg a mais bala ngeen yóbbu Mbàkke ndox nangeen ngeen fexe ba toog ak population bi ndax ba léegi nii ñu ngi demande autorisation pour forage yooyu nekk Sadio ñoom waa Sadio ñu mën ca branché pour am ndox depuis trois mois ngi nii ñu ngi leen bind lettre pour ngeen tontu leen pour ñu am autorisation ba léegi mënuñ ko am bëgg naa nu mu gën a gaawee boo mën a recevoir maire bi ak collectif boobu nga recevoir leen bala ngeen a jëlee ci dëkkub jàmbur ndox di ko yóbbu ci ab dëkk ngeen res nga xamante ne moo nekk Sadio ndax moroom 40 ans ngeen fekk Sadio te réglé leen ko kon bala ngeen a réglé dëkkub jàmbur ngeen réglé dëkk ba nga xam fa la ndox may beneen bi ci toppaat di ñëw ci problème assainissement Touba Touba moom bu ñuy xool dëgg-dëgg manqué maam mën nañ ne problème assainissement la ndax ministre bi nga xamante ni mooy ministre Mansour Faye bi mu fi mujjee ñu interpellé ko ci problème mu route yu bon yi nekk Touba moom problème mu la wax ne moo ko waral kon jàpp naa ne problème mu foo ko takk wees na ko beneen bi ci toppaat ñu leen wax lu tax boo leen defar ay tali njëkk assainir ba pare ndax deux deuxième corniche bi xamante ni moo jaar kër Sëñ Cheikh Bombali bi ngeen teg xeer bi da ngeen ñoo digoon ne bala ngeen koo defar da ngeen ko assainir ba pare ba pare deux voies lay nekk nekk assainissement ak espace vert ñu gis bi tali bi yeggee benn voie la nekk amul assainissement day mel ne yooyu denk kaayu ndox la juddu Touba ca kanam day wane esugu état bi ci wàllu assainissement ndax li Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum doon wax fu bit si am benn voie waru faa am Touba ca kanam jàmbaar lañ mais mënuñoo assainir dëkk ba màggalu Touba gii jàll képp ku ñëw ci dëkk ba di nga xam ne dëkk bi buñ ne am na assainissement te li ngeen ne def ngeen ci ay milliards mën gëm naa ne boo leen ko jëndoon ay sarbet teg ko ci dëkk ba ndox du fa taawati kon milliards yooyu war ngeen wax fan ngeen ko dugal ndax jàpp naa ne dugal ci biir dëkk ba beneen bi ci toppaat ñu ñëw ci bassin Darou Rahman bi bëgg nañoo xam ban cabine ngeen jox étude bi ñu war koo defar ndax mënuñoo gis bassin boo xam ne heure boo leen ko defaree mu yàqu te bu yàqu day yàqaale ay toolu jàmbur yu bëree bëri te ñooñu duñu leen di dommage loolu monsieur le ñaata million lañ ci def wala ñaata milliards lañ ay nit ay ay millions wala ay milliards ñu defar ko bu yàqoo ngeen ñëw defaraat te duñu wax ban étude moo war a topp loolu leen def Touba comme dëkk yëpp ndax seen recensement yi ngeen génne moom moo signifié ne Touba yëmul dëkk yëpp ndax département Mbacké mooy département bi ëpp ay nit ci Sénégal kon dëkk boobu boo leen fay def war ngeen faa considérer comme loolu ndax budget bii Moustapha Ba di wax naan budget de solution budget de combat budget boobu li ci Touba di contribuer bëri na trop su ma juul mën ñaari problème am mooy problème bu ndox muñ naan ak problème bu ndox bu taayee fu mën a taa kon gëm naa ne war ngeen a gën a considérer comme dëkk boo xamante ni mooy premier département du Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Abdou Mbacké vous avez la parole Karim Sène le suivant